Euh, mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu euh, dellusiwaat nañu incha allah fas leen yéenee indil deuxième numéro ci wàllum meññet yi xam ngeen ni defoon nañ premier numéro ci wàllu tàndarma waaye njëriñ ñi bari na ba jeexul kon tey it ñëwaat ci tàndarma su ko defee dinañ leen waxaale lan mooy conséquence su tàndarma ndax du caaga ni da ngay jël tàndarma di ko lekk suba ngoon guddeeg bëccëg donte ne. am na suukar waaye suukar bi mu am du def dara diabète amul maanaam amul suukar buy gaañe am na suukar nag loolu kéemtaanu suñu borom la waaye dinañ leen ñëw léegi wax leen leneen ci tàndarma waaye wax leen nag ay conséquences am léegi léegi lay doon ci plateau bi allah. kon ñu ñëw rek euh, incha allah comme ni ñu ko waxee léegi ci ñaareelu émission gëstu. ci tàndarma ñu ñëw directement rek duñ ko tàyyi dañuy fàttaliwaat rek tàndarma gi ñuy waxtaanee mooy ak tamuur ak réew mi ñu nekk nag ku ne xam na ni langue bi ñu gën a làkk mooy français kon date date waaw bu fekkee nag ci ñun wàllu olof ñu ngi koy wooyee tàndarma tàndarma ok tàndarma mooy ak tamuur mooy daal kon mbokk yi ñu ngi tolloon ci lu am solo wax nañ leen ci émission bi weesu ay mbir ci tàndarma waaye jeex gudde ndax euh, tàndarma kat dafa bëri solo xam ngeen ni dafa bokk ci li muy regle mooy comme ni ñu ko waxee ci yoon yu weesu dafa bëri vitamine moom tàndarma dafa bëri ay njariñ tàndarma dafa riche ci lu baree bare loo xam ne dafay dimbali nit ki waxoon na leen ci yoon yu weesu lu baree baree bëri waaye nag jeexul ndax dañuy continuer kon indil ma foofu tàndarma rek kon tàndarma am na bu mel nii nag waaye nekkul ni tàndarma yëpp nii lay mel mën nga ko teg noonu rek tàndarma am na yoo xam ne dafay wow am na tàndarma bu verte waaye tàndarma daal bu mu mën a doon nay tàndarma rek am na xeeti meññet yi nga xam ne moom lañ ciy sàkku kon mbokk yi dañuy ñëwaat tey waxaat leen ci njariñu tàndarma tàndarma dafa bokk ci li muy jariñ mooy maux de tête nit koo xam ne dafay insomnie du nelaw ak it mu dem ba mu indil ko muy gaaw fàtte tàndarma mbokk yi dafa bokk ci liy dindi ak gaaw fàtte maanaam lu ñu la wax rek nga fàtte ko bu ñu nee la boo demee jëndaaleel ma nangam boo ko fàttalikoo rek mooy ñëwaat nga ba ci kër gi rendez-vous bu ñu la jox nga fàtte ko feeg weesuwul wala nangam ba ñu woo la doo ko fàttaliko loolu gaaw fàtte googu booy def saa boo xëyee nga jël dara ci tàndarma soit mën na nekk ñett mën na nekk ñeent mën na nekk juróom-ñaari tàndarma maximum nga di ko def di ndox di ci teg ala kulli alin yàlla dina la may xel mu neex kon boo xoolee sax ba ci wàllu lasraar da gis ni am na ci kiis yoo xam ne kiis nag ci ñi ko xamul mooy li lii tax sa xel neex te am na kiis yoo xam ne boo ko bindee tàndarma nga koy booleel ak lem kon day wane ne tàndarma dafay neexal xel boo amee gone bëgg xel mu neex del jël tàndarma nga dindi doom yi boole kook lem bati ko boo ko baxalee ba mu doon koofi nga di ko jox loolu dafay neexal xelu xale loolu nag waxtu sabbaax lay doon maanaam b xëyee su bëggee le matin kon bokk na ci euh, ba tey ci ci ci njëriñam muy gaaw fàtte ah. Euh, tàndarma dafay laver cerveau maanaam dafay raxas xel ku ne xam ne doomu aadama dafay soxla ay mbir yu bëree bëree bëri dañuy bëgg ñëw muy doon beneen thème waaye doomu aadama soxla lu bëri ngir raxas xelam bokk na ci yenn saa yi nga wéet bokk na ci yenn saa yi nga wàññi say activité nga xam ne da nga koy liggéey activité mentale yi yenn saa yi dafay jar nga dem ci bërëb boo xam ne dafay wuteeg yii ñu dëkkee lu mel ne géej lu mel ne àll wala euh, lu mel ne vacances wala yooyu dafa bokk ci lii raxasaat xel waaye tàndarma ndekete dara gënu ko ci raxas xel mbokk yi daf koy daf koy daf koy def bu baax a baax a baax dafay dafa am ñaari yu muy yokk énergie dana yokk énergie nit ci doole ci góor buy kayang kayang par exemple nit moo xam xale la moo xam mag la xale boo xam ne dafay dafa manqué doole ba buy dem école sax di télé télé di daanu wala mag moo xam ne buy dox sax mën na di kii tàndarma dafay may nit góor doole dafay may nit doole waaye yamu ci loolu dafay may góor doole ci wàllu sëy ku xam ne ni standard dafa baax lool lool lool lool lool ci wàllu sëy rawatina ñi nga xamante ni dinañ ànd ak seen soxna waaye dañ am jafe-jafe ci produit bu baax maanaam liy génn ci ñoom baax ba mën a am doom ndax jigéen ni mu amee jafe-jafe ngir am doom góor da koy amee jafe-jafe te fekk ne mi ngi mën a sëy waaye lay génn ci moom moo eggul ci mën a produit doom kon tàndarma dafay renforcer ndox moomu di ko dooleel te dafay dooleel góor ci wàllu sëy kon tàndarma loolu bokkaan na ci ay te defe naa ñu ko soxla ñu ñuy woo di ko jàmbat bari na ci wàllu sëy tamit dafay dind li ñuy wax éjaculation précoce mooy góor boo xam ne buy ànd ak soxnaam daanaka ay seconde rek la mën a la mën a nekk ak moom loolu mooy éjaculation précoce daf koy dind rapidement kon ginnaaw dëgëral gi muy dëgëral góor loolu daf cee bokk prise de poids waxoon naa ko ci yoon wu wees waaye dama ciy gën a insister tey bépp jigéen boo xam ne da bëgg a développer say cër bu nee jigéen nag buy développer cëram dafa am partie yu gën a soxla partie yooyu dees na ko xam su fekkee dafa bëgg euh, muy développer te du am benn conséquence nay jël tàndarma di ko lekk bala muy tëdd mën na bañ a bari nag surtout bu dee tàndarma bu tooy bi la parce que dafay indi ay constipation kon loolu rek ci la ñuy ñëw sax euh, wax tàndarma yan conséquence la am xam ngeen ni garab lu mu baax baax dafay am conséquence meññat lu mu baax baax day am conséquence kon bokk na ci conséquence yi tàndarma mooy ne dafay indi constipation tàndarma dafay indi constipation constipation mooy lan mooy seere tàndarma bu tooy bii bu fekkee danga koy lekk rek di lekk di lekk di lekk jàppee ko benn noos daal loo xam ne foo toll da nga ciy lekk dafay indi tàndarma dafay indi seere xam ngeen ni siw na lool ñu ne ku ku baax kii yonent bi allah sallallahu alayhi wa sallama daana boole tàndarma ak meew yonent saa sallam daana digle ne nañuy moytu seere yooyu daana ko digle ndax seere ku ne xam na ni dafay dafa dafa yonent saa sallam dafa wax ne tooke la ci nit tooke tooke nag mooy poson la ndax li war a génn nga xam ne dafa war a génn ndax ñàkk am ci yow parti boo ko bàyyee ci yow mu indi la ay jafe-jafe bokk na ci li muy indi mooy hémorroïde seere day indi hémorroïde dafay indi ballonnement kon ci ballonnement boobu sax dama koy bëgg maa ko doon bëgg a fàtte waaye daf koy daf koy dindi moom tàndarma dafay dindi ballonnement ballonnement nag mooy biir bu rëy rek nga mel ne kuy noos fekk noonu noosoo waaye ngelaw lay ngelaw rek moo ci nekk nga xam ni dina dem toilette te du génne dara waaw yooyu yëpp dafa dafay dafay indi gàllankoor kon kon te tàndarma daf koy dindi waaw bu ko defee ñu bàyyi xel rek ne tàndarma am na conséquence conséquence yi benn ngi ci ngoog boo xam ne ku ne na ko bàyyi xel tàndarma ju tooy boo dee lekk lu bari dafay jàllu ci sa biir kon ban solution la ñuy def ba mën a jëfandikoo tàndarma te du am benn problème tàndarma soit boo ko jëfandikoo da nga koy booleeg meew naan meew wala bu fekkee ku koy lekk la kese ko lekk lu bari mu koy booleeg lu mel ne beurre su amee lu mel ne tartine te tàndarma sax far yàlla mën nañ ko def mu doon mu doon comme yi ñuy jaay ci boutique yi muy doon comme xeeti lekk yooyu nga xam ne dañ koy def ci ay kuddu di ko di ko lekk ni ñu koy defee nag mooy da ngay jël tàndarma nga génne doom yi nga tracé ko boo ko tracé yaa xam bu la neexee nga boole kook lem bu la nga boole kook leneen lu mu doon luy ànd ak tàndarma su nga boole ko huile d'olive d'olive wala nga boole kook mboolem xeeti huile yi nga xamante ni méngoo na ak moom parce que huile yi bari na soo ko booleeg moom nag ba mu doon pat gaaw a yàqu bu la neexee nga def ko ci bërëb di ko lekk dafay daf lay may poids te su boobaa fa mu waroon a jalu njariñ li dana gën a bari du la indil constipation te bu fekkee jigéen la dana yokk ay parteem yi nga xam ne bëgg na mu yokk bu dee góor la dana ko may doole kon ñu bañ a guddal rek tàndarmaa ngi noonu weeru koor ñu ngi baalu ñëpp àq di dog ngante boroom xam-xam yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa